naa su junneeg juróomi téeméer xaw ma fu ma koy jële ah fi ne ni dëkk bi daa doy waar ci man nga ne ma ne nga coupé dam ko yow tubaarkàlla yaa ngi noonu ma lijjanti leneen waaw père ziar naa la. waaw naa def sant rek alhamdulilah sant rek sa waay nakay tey alhamdulilah mais père dafa mel ni ku dégg say kàddu dafa mel da ngaa nekk si ay jafe-jafe moom yu yu maga maga maga maga ah. ordonnance ju nekk juróomi téeméer daal ah. moo nekk fii mu doy waar lool mais mel ni sa problème am naa solution bi de ma yow mii. waaw ah, xam nga ñun dañu ne ay doomu jullit te xam nga jullit moom bu rombee moroomu jullitam dégg ko muy ñaxtu rek. Mhm. bu ko mënee dimbale rek da ko war a dimbale. ndeysaan n'est-ce pas yaa ngi sa carte électeur. mu ne. ma ne n'est-ce pas yaa ngi sa carte électeur. sama carte d'identité. waaw maa ngeen moom. Ah. sama jëm maa ngeen moom. donc problème ah. amul solution. ah ma jox sa carte rek ma sànni la benn 5000 francs. mu ne. waaw. jox la sama carte nga sànni ma junni. waaw mais père loolu amul affaire de réfléchir. yow dëkk bi instant bi kenn ku fi nekk sa bopp nga fi nekkal benn mbër fi nekk xool ñu ko neex teg ci ginnaawam te naan on ne change pas l'équipe kii gagne ban équipe moo gagne fer ci loolu dama xaw a yaakaar. kaay kaay kaay kaay kaay kaay bilaay ñàkk pexe pexe la ñàkk pexe ay waay jàmbaar jaa ngay dem de bilaay mbëre ngi dem ay def da def bonne journée yow daal. waaw xéewal rek. waaw dara moom xéewal amul problème waaw xéewal. jërëjëf incha allah yéen moom ni ngeen nekkee ci dëkk bi. waaw wax dëgg yàlla yàlla gis na ko daal merci de me rappeler. <laughs> waay. bilaay booy bi xaw ma lu ma koy nii nag juróomi téeméer laa ci teg rek bu ko defee ordonnance bi mat ah. allah lii tamit wàññiwul dara daal. eh booy booy gaan booy naka waar booy ci loo nekk yaa booy tey booy non tey dama cee dalal dalal dal bii benn dal booy nu ma si dalee mosuma xalaat sama àdduna naan dalee dama cee dalal dalal dal xaw yaa ngi may dégg xaw ma nekk si lii xaw ma nekk si lii mais boo duggee rek na nga lii sama message xool neel 25000 xam nga 25000 25000 laa lay tegal nii de eh. sama kayitu numéro 40 rek laa joxe numéro 40 kese. numéro 40. numéro 4 ans 25000 la wax numéro 4 ans 25000 boy man tax bi pa bo xamanteni boy essant yi nako no deug jamm billahi may wax la bo duggé bo li rek yow ya am gëna xam waaw ma ngi jéggalu de doom ma ngi jéggalu tay nako ya ngi jamm yow nga ni numéro 4 d'anté nga joxé ñu jox la ñaata 25000 juromi junni juromi junni waaw 4 ans ko da animalé wala père numéro carte da ngeen a may carte bi laa dem. affaire yow ak yow lu tax ba jàmm la. mooy bi mooy doomu yi am dikk nga jox booy yow da ngay fen yow joxe yow carte d'identité nga jox. père li tax ñu jox la 25000 carte d'identité nga jox. père numéro carte d'identité laa joxe nga ma. yow ma ngi toll yow. mais père mbaa da sa carte d'identité. mooy mooy imbécile. dalaa ñoom 25000 ba xool suba lu may. ba pare eh, man waxuma loolu sax man sama carte d'identité ba fan laa koy gis fan laay gis carte d'identité ba. booy mënoon nga maa mbëkk. yow maa ngi joxe ab carte d'identité pareegu ma ngay. tey moom ma jaar doxaani ñu moom tey jii. man moom wax nag booy bi doomeraam la quoi. dox rek dox. ah jigéen da ngay toog sa kër ngi fi nekk na la si mel ne ak. waaye. yow yaa si man ngaa dëkk ci ci biir ci biir ci suuf ni kër gi fu ne war naa ko di la seet nga ne lasin na am looy maa jaaxle fu ne ma dugg indoor naa si nga ne bay ma diwoon ne dëkk naa la sa tànk dëkk. ma tane ma def parce que dañu war a def ci ndox foofu laa demoon loo ma mën a génn loo kat ma jaaxle sama bopp dëj ñëw fu ne ma dugg tey li ma daj li ma daj tey ji du ma la ko ñettal ah. da ngaa ëppal dong mais sama bopp moo ah, doon moo doon dee ci kër gi sax du ma la suul yow yow yaa bon yow yaa yées ah fu ne ma préféré sama tànk xoolal ni mu wér. koy sëb. foofu la ma dara. boo ma dóorul rek de mu doy ak sa jaay jëm yow. ñu ne tant que sens politique moom boo ci lekk doo ko ci lekk.